asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi may dellu si waat tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz euh, l'officiel ñoo waxtaan si ak yenn euh, mbokk yi particulièrement yenn askanu Ndakaaru Ndiaye et en général bien sûr euh, askanu Sénégal ñëw na leen comme fii biir Sénégal couvre-feu bi jeex na daanaka activité politique yi day daal di reprendre euh, mais euh, fàttali askan wi que balaa ñuy installé couvre-feu bi ñu ngi doon def ay visite de proximité di dugg ci kër yi di dugg ci gox-goxaani di waxtaan ak mbokk yi di préparer tamit lii di élection locale ak euh, tamit jéem a xool nu ñu mën a doon bennoo pour mën a siggil Sénégal ci élection législative yi. mbokk yi lu tax lu ma leen di wax mu nekk lu ma ñor te ma am yaakaar dina tamit doon lu leen di ñor parce que lu jot a xew ci fan euh, yu ñu paase nii mooy xeex yu askan wi doon xeex pour jële fi nooteel ak yebel euh, xeex boobu naam am nañ ci kontante wante damay ñaax askan wi bu leen ci naagu bu leen ci naagu parce que waa ji di président Macky Sall dellu ginnaaw bu leen ci am xel ñaar du bàyyi tamit lu mu nekkee woon parce que moom moo xam lu ko mbir bi jaral wante lu ma leen bëgg wax mooy yéen lépp lu ngeen am ci yaakaar ci ëllëgu Sénégal nu ko doon waxee ci tubaab Albert Einstein nee na il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé des problèmes pour les régler daanaka su ma ko tënkee ci wolof mooy bu leen am yaakaar. ci saay-saay yi ngeen xam ne ni ñoom ñoo leen indil ay tolof-tolof pour ñoom ñu daal di euh, lijjanti seen tolof-tolof duñ ko def. kon nag képp ku leen bëgg a gëmloo ni que président Macky Sall dina amnistie Karim ne leen ko Barthélémy Dias nee na wax jooju dëppawul ak dëgg. képp ku leen bëgg tamit gëmloo ni ni que dina. gracier wala dina amnistier maa ngi jégalu di amnistier plus ou moins kii di Khalifa Sall tamit ne leen ko Barthélémy Dias lu mu wax euh, mooy wax jooju dëppul ak dëgg. su leen waxee tamit que président Macky Sall dina def kent lay tanam pour que procès euh, caaxaan bu ñuy mooy seen procès affaire Sweet Beauté euh, Macky Sall dina ci def kenn kattanam pour que kii di Ousmane Sonko. Euh, ñu mën ko seetal tamit na ngeen ko wax ni que Barthélémy Dias nee na wax jooju dëppawul ak dëgg kon nag lii di fulla lii di fayda lii di jom ak gëm ëllëgu Sénégal mooy ñu bokk ndey bokk bàyyi mën a doon benn say ci élection locale loolu mën a nekk tamit benn exemple pour ñu mën a gën a yombal lii di unité bu ñuy namm ci élection législative ci 2022 bi parce que suñu nammee ñun amnistie mooy moo xam ci Karim moo xam ci Khalifa Sall suñu nammee non-lieu moo xam ci Barthélémy Diaz ci fusillade bi moo xam ci Ousmane Sonko ci waxu caaxaan yu ñu wax ci waxu affaire Sweet Beauté boobu daanaka foog ñu nekk benn am ndam ci élection député mën a am cohabitation parce que amnistie du président mooy amnistier assemblée nationale mooy voté loi pour amnistier te président Macky Sall may biralaat wax ji te man ak yéen xamante nañu man du ma waxantu président Macky Sall du fi amnistie kenn parce que xam na lu koy xaar président makisal du fi joxe benn instruction pour ñu setal fi Barthélémy Diaz wala ñu setal fi Ousmane Sonko du ko fi def parce que dafa am lu ko mbir bi jaral kon nag yenn askan wi yenn jaaree na ko amnistie ñu ngeen nam ma ñoom ñu bokk ci élection président. yéen ñaa leen noga def seen kem kàttan ba justice bi seetal Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko lu ma doon wax ci moom wax naa ko ba pare lu ma xalaat ci Ousmane Sonko wax naa ko ba pare te ñu ko jot loon dégg tamit ma baaxe leen bii. Sonko nit ko baax la d'abord jullit la man ci lu ma gis ci lu mu dégg nit ko bëgg Sénégal la lu ma waxoon ci Khalifa sàll moom lay wax ci Ousmane Sonko moo tax moo xam yaayam. moo xam ay soxna moo xam ay doomam nañu am contenté ci seen doom seen jëkkër seen pap parce que Ousmane ku dara jàppale la te ku dara wóoru bu ci des may waxaat bii mooy la dernière fois may indi demanti man dama bëgg askanu Sénégal ñu jàppale ni boobu man dama leen respecté te man du ma laam-laame du ma waxaale ñit norma respecté bii mooy dernière fois bu may indi démenti maa ngi jéglu nag bu baax a baax ci askan wi wante yéen nangu leen nangu kuy fooye seen xel mënu leen gis ay nit yu mel ni Barthélémy Dias saa bu du fa boppam ma jox leen suma lépp teg ci nag fulla ak fayda jël suma bakkan bi teg ko ci xottu gerte ñu may bëgg dëkkaloo fu ma dëkkul ku ma respecté wul ma respecté suma bopp bii mooy dernière fois bu may indi démenti na ngeen xàmmee ak di ràññee baat bi waaw te nee naa leen saay bu may wax man Barthélémy Diaz damay wax ngeen di gis suma kanam dama bëgg ngeen am ak seen xel te ngeen di dëgg dàcc le 5 mars 2019 fii ci réew mi nit jël na suma baat di ko utiliser ñu génne élection présidentielle ñuy woote ay fitna mën na leen bu suma baat lu ñu ci namoon mooy jàpp ma rab ma ci kaso bi ñu dawaat ba le 8 octobre 2019 yéen ñëpp ngeen dégg fii le 8 octobre 2019 ngeen déggaat nit jëlaat suma baat di ma bëgg a dëkkaloo fu ma dëkkul ma defaat encore démenti te ma biiralaat encore wax ji le 10 février 2021 dikk rek la woon ñu jël suma baat bëgg ma dëkkaloo fu ma dëkkul jël baatu ku ilif jàngu bi ci senegal di ko imité pour nekk waaw monseigneur Théodore Adrien Sarr moo yëkkati kàddu yi te ñun ñi ñu xam ne ni que loolu dëppul ak dëgg ñu dem ba jël baatu maître Ciré Clédor Ly di avocat wu Ousmane Sonko ne lii la wax ci Ousmane Sonko bii mooy dernière fois bu may indi demanti bépp sénégalais laa wax sa xel wala sa sa bopp xaw woyof ba ñu koy fooye ba nga bëgg a gëmloo nii que waa damaa dégg baatu Barthélémy Dias yow mii ne la ne la yàlla may xolu muñ ñuy jël suma baat di ko bëgg utiliser lu ñu nam ci loolu mooy jaxase ma ak Ousmane Sonko yenn Sénégalais yi wax naa leen fan la Ousmane Sonko toll ci man te man dama koy assumer wax naa leen Ousmane Sonko maa ko bëggal suma bopp te amul kenn ku ma dëgg Sénégal may wax ci ay waxu ay caaxaanu ay xawma ay affaire ay suite beauté jot boobu awma ko parce que man kenn du fooy suma xel. ëllëgu Sénégal ma ma ñor ma ma tax a jóg kon nag ay fake news ak xaw ay waxu ay caaxaan ay réseaux sociaux du ci dugg te fu may daanale ci wax bi dama ne benn violeur kese képp rek dong moo am Sénégal mooy kuy violer seen ak ak seen ay yelleef mooy kuy violer seen ëllëg daanaka di violer la constitution du Sénégal ak ku nga xam ne ni mooy violer les lois et les règlements de ce pays kooku c'est le seul violeur dans ce pays nee naa leen lu ma xalaat ci Ousmane Sonko ku ko mën a gëm nga gëm ko ku ko mënul gëm na la yàlla may xolu muñ te ku ma dégg na ngeen jàppale Ousmane Sonko parce que ku jara jàppale la fa laa mën a yem ci wax ci bu ci des nag mbokk yi maa ngi ñaax ñépp ñu bokk ndey bokk bàyyi fu ñu jëm ku bëgg a dem dem nañu ku bëggul dem dem nañu parce que Sénégal kenn moomu ko du moomeelu kenn et je le je reviens à ce que j'ai dit il faut une unité et à ce titre J'invite tous les Sénégalais à faire preuve de patriotisme et de responsabilité. Il n'est pas, une fois de plus, l'heure de prêter le flanc ou d'être faible d'esprit. kon nag mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéglu tamit ñëpp di jox tamit dig ndaje askanu Ndakaaru di ngeen gis di ñu dégg ci gox goxaati biir Dakar je le répète nous sommes candidats à la mairie de Dakar c'est notre responsabilité c'est notre choix Et avec le peuple de Dakar, nous allons redresser une fois de plus la barre. Je rappelle que Dakar n'est pas négocié. Dakar ne disparaîtra pas. Le maire de Dakar ne sera pas non plus nommé par décret présidentiel. Et à ce titre, nous tendons la main à toutes les forces vives de la nation, forces politiques, forces de la société civile, forces syndicales, pour mën a bokk ndey bokk baay may biiralaat wax ji mais ci insister waat il faut une unité pour élection locale pour loolu mën a doon benn test pour élection législative loolu mooy tax ñu am cohabitation mën a imposer suñu amnistie ak mën a imposer suñu ay non-lieu ba ñëpp mën a bokk ndax tamit askanu Sénégal mën a tànn seen njiit di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.